ne wute naa xukuma naa si attee di ñi fi nasin ci taksi aw ijmaay wala dëppoo aw qiyaasin wala qiyaas gu feeñ dafa wax ne ki xam ne bokk leen ngir bu attee ngir yëpp ci far dëppoo dina ngir duñ ko attee noon waaye ba demee ci attekat moom bu xasee atte ñëpp ci d'accord mm-hmm. waaye nag attekat bu attek loo xam ne dafa am texte boo xam ne ñëpp dëppoo nañ ne moom attekat bu wute naag texte bi. Ah. wala la borom xam-xam yëpp dëppoon attekat bu wuteeg moom wala la nga xam ne moom la xiyaas di wane. ñëpp jàng ko attekat bu wuteeg loolu. atteeb attekat boobu lañ koy dàq kon nit même bu dee mooy attekat bi bu attee lu ci yoon te ñëpp d'accord ne lii njumte la dañ koy dàq kenn du ko wéyal. balaa ñuy saraafoo ñu mottali faayda li am njëriñ la. Ah. لم أكنه شافعي كذب شافعي بحل المبتوتة ci daga nag jigéen juñ dog alladi ki nga xam ne bitta dog nañ talaaquha fasem mu ne dagan na bi wati sabi ci laala xare alladi bi nga xam ne tasawajaa takk na ko baax doo gannaaw ga bii ni wa lii ci ndigalu kilifaam ma talaqaa topp mu fase ko mu ne ci moom maalik yun ko jug maalik li maslaatin ngir maslaa woto shafi atten dagan sannan kuma shafi na katab shafi ya rafi a yakatar da khilafin ya rubuce ga batinan cikin na buwa zahirin a gurfen wala hurmata da haram alal muqallid da ci ajurai lahu niyal malik wala shafi fi zalika turu anam waji dafa fasa jigéen ji ñetti fas bëgg koo takkaat te maliki la dañ na ko faw mu sëywaat bañ seeg moom fase ko nga door koo mën a takkaat xam nga lislaam bëggut caaxaan nit dafay def farata fase takk fase takk bu yàggee mu ne hee doy na kat da ngay téye nga bàyyi waaye fase di takk nag ñetti yoon lañ la ci may bu ñetteelu yoon bi jàllee moom neneen ne la dañ koy jëfeel faw beneen góor takk ko te du yem ci takk ko dana séeg moom ba mu nekk jabar jàmbur te kooku moom lay neex mu fase ko ko doo see a jotal léegi nag keneen ku koy takkaar nag foo mu mësoor waaye maari moom jàpp séeb xale muy xale nit bu fasee jigéen ñetti yoon ab xale bu matul mu kalaf takk ko bu séeg moom loolu ci maari bu séeg léegi na bu dee yow da ngaa fase nit ki dafa fase soxnaam xale takk ko seeg moom mu dem ci àttekat Saafi yi ne ko ndax dama bëggoon takkal sama soxna si ñetti fase laa ko fase ko takk sëy naa moom Saafi bi ne ko dagan na ndax gis ne mooy intérêt su mën na ko takk moom maa ngi kii na ci moom xaraamut waaye ci kaw jubluwul si prom dool bu mu jaaree ba mu dagan bu dee wóor na ko bu demee Saafi bi mu àtteel ko loolu mu dagan moo tax mu dem fa dafay xaram mais bu fekkee moom dafa dem rek ci àttekat parce que situation yu bëri xew na xëy na bu takkaatu soxna si mën naa compliqué ci moom ak yu demee noonu mu dem ci àttekat Shaafi bi ñu attel ñu àtteel ko loolu waaw dana dëggan waaye nag dañuy bañ mooy yaa ko tey xam ne boo demee fayee mu ne baax na te sa ngir nee na baaxut nga dem fële pour ñu wax baax na su boobu du baax. dafa fekk mu nekk tombé tombé rek jubloo ko si woon daal jubloo si woon yombal ga ba ngay dem sax xamoo lu lay atteel mbaa xam nga ma la wax. Hmm? ñoom su ngeen mooy bay atte lislaam bi sax carrément hmm. benn dëkk bi mooy am benn attekat nit dafa dem wala boog koñ bi nekk dañ fay samp si moom la a di prox ay danaan am yu bëri comprendre waaw waaye dafa am dana ñuy xaadil xuddaat dafa am procureur mais dafa am yu koy wuutu tamit ci atte bi waaye nag ñoom ñëpp benn bloc la doon nga xam ne sa atte bi bu juumee mën nañ ko yëkkati ci kaw sa kilifa gi xool ba ci ki nga xam ni moom mooy attekat bu mag mais ci lislaam nag ci dee xaajil xuddaat hmm? comme hmm? euh, yow mën nañ laa samp pour tubaab jalaaw lépp nga koy atte hmm. mais yow da ngay samp yeneen attekat ci yeneen bureau yoo xam ne jegewuñ la gars yi bu ñu amee problème mën nañ faa dem yëpp mën naa nekk yëpp mën naa nekk waaw ñoom duñ nekk loo xam tënk ci benn ngir rek nangam nangam dañu dem ñu àtte rek ci lislam loolu war nañu may àttekat doole boo xam ni moom it boo xasee àtte kenn dootu ko teggeeti waaye su lu wóoree na saafi bi moom boo demee moom mooy la dagan na te xam nga ne sa ngir daganal ko nga jaar si saafi pour ñu daganal ko su boobaa du dagan dégg waaye loolu al masala mooy masala mu la faqa buñ buñ tàppe mooy tàppe ñaari ngir waaye loolu fusxatun lu dagan la ida kaana bu nekkee xëy maqsuudin du luñ jublu bu dee jubloo ko ci lay dagan boole ñaari ngir dagan na mais ci kaw mu ñëw noonu rek jubloo ko ci wala lor jàpp la hmm? waaw nga xam ni boo naree topp sa ngir dafay xat ci yow lool darura boobu mën naa tax nga topp beneen ngir xam nga ci ngiram Shaafi xam naa nag ku nekk noo ko gisee la waaye ngiram Abu Hanifa moom laal jigéen am ci bànneex yàqut jàpp fa takkoon soxna soo xam ni wóor na boo ne ko sori moomu mer te moom nangu laa sori seet la bu bees chaque minute chaque minute du la sori te bañ nga tas sëy bi mën ngaa roy Abu Hanifa loolu dootu yàqati sax jàpp mu nga ngay créer ay problème ak nangam nangam loolu mooy addina yu suur da nga ne fekk ne am nga temps amul euh, amul benn problème bu si nar a judd ba waxtu bu nekk da nga ko war jàpp julli parce que foofu diiqa bi moo tax nga def loolu sëy nag buñ mayee fen ngir mu jàkk xam nga ne danañ maye roy beneen ngir pour mu jàkk xaaloon hmm? asaawi fi bulgati saalik وفي الحاشية أكشي حاشية نقلا تخليكم بعد الشيوخ نين سنين لأن المدير لا يلور في التلفيق شيء بولا مسألة الدخول متبع عليه شيء مم ما مانام دف تيا كتاي وما إن لم يحصل وعيب أمر الدخول دوغ عليه شيء مم وينما حصل لك أمر أمر بر اتفاق بلبو دعنا نيورك نفر لا تلور وعيب جبلو كشون جاهز تكن كم هو انتهى جهنا والواقع لتب أن الباتن أجدوك لتلاقي زوجتي ñeel fas jabaram maalikiyun këjug maalik la waaye Shaafi yi mu ko attel na fekkee xale ndaw moo sëy moom dagan nga takkaar ko bu fasee loolu mm-hmm. mm, kii la fa fa taamal seental dégg xawloo hmm? xam woon xudhu maanaa wa mu xaalif naka atteb aju ci ngir yajibu dana war naqdu firi ko wa ibtaaloo ak yàq ko ak moo xam ne bokk ngir bokk na ngir in xaalafa ne moo tënaa xokku manaas attim nit ñi ku at ku atti daal loo xam ne bokkut ak li nit ñi atti dañ koy yàq ay in waqaanem tàbbi na mu xaalifa daaji at wuuteeg li xokku min ulama yi ñeen attee borom xam-xam yi dañ koy yàq aw ne mos na mu wuuteeg xawlu moom waxi borom xam-xam yi fii nasin ci teg si woowu moom sariwu ayatin mooy aaya bu leer muhkamatin bu maanaa ba leer nañ bokk da alif lam mim xam seen maanaa yi dafa niroo aw xadis wala xadis saxiwun bu wér xadis bu euh, li nga atte dafa wuteeg mu atteel li aw zimmiyin wala këju kóllëre bi shahadati kafirin ci seede xéeféer nga ne waa am na ndam am na dëgg seede mu indi mu ay lañ xam nga loolu baaxut fay na hukmu naka atteem mu xaalif na aji wuteeg la li xawle ñeen wax yàlla azza wa jalla tamaa gën ndax yàlla def ne waa shidu na ngeen seetloo sa way àddina ñaari way maandu min kum si yéen te yéefar maandu moo tax ma ne la bul bokk mukk suñuy wax ne l'islam Sénégal nañ fi àtte woo ku rey ñu rey la gis nga l'islam uduxulu fi silmi kaafatan la xam da ngay jël lépp wala nga bàyyi lépp yaa ngi dégg udxulu fi silmi kaafatan da ngay jël lépp wala nga bàyyi lépp wala boo ci jël benn atte tamit na jël lépp atte boobu waaye ku rey nit ñu la rey nit ñu rey la goo xam ne nii jullit bu rey xiifir nga dañ koy rey te yàlla rey loolu ko atte boobu baaxul boo xamee seede yoo xam ni ay kàccoor lañu ak maandu lañu xiifir lañ sa nga ne waaw parce que nga ne réew mi laayeg la ñëpp a yem kon kay yow nekkatul atteer islam bu dul atteer islam ñu ngi si suñu yoon loolu xukumul jaahiliya di bu fekkoon rey ñu rey la dañ koo teg ci ni ko lislaam tëralee même buñ jëlee boobu kese sax baax na waaye rek ci kaw ni ko lislaam bëggee amaa rey ñu rey la goo xam ni wax dëgg yàlla si ñoom niñ ko tëralee ci laayeg la laayeg ga nga xam ne mën nañ see rey bakkan bu yàlla rey benn jullit waru ko encouragé bu bàyyi nga encouragé atte boo xam ne mën naa rey ku ñu reyut ku islam reyut te rey benn bakkan yaa ko tey xam nga ne loolu ku ci bokk ku ne yàlla këpp safara hmm. moo tax moom loolu man dama ko kontur di rek nag borom xam-xam ñu bëri ñu wax ko bu doon ko rey ñu rey la rey gi jeex fi waaye ci kaw mu dëppoo aw ijmaa war a dëppoo ay kul dana yàq xukumu atteem ay dem ba tey in xaalafa nem wuute naag al ijma dëppoo kama law xakk ma ni bu atte woon bexti saagil aqi ci jegoog mbokk bil irsi ci donn dégg nga waaye maa ak xañ maam maam ak mbokk yi buñ dajee moom mu ne mbokk yaay donn maam gi ñàkk kooku kenn attewu ñépp ñëpp dëppoo ne moom maam moom foo mu donn benn mu séddoo mbokk yi rek wala moom mu jegoon donn ga mbokk yi ñàkk noonu la ñaari borom xam noonu la borom xam-xam yi wax waaye xañ maam kenn waxu ko laan al ummata ndax xeet bi kulluha lépp ala qawle ni ñu ngi ci ñaari wax ahaduhuma benn bi muqaasamatul jaddi mooy séddoog maam lil ixwati ñeen mbokk yi waale yi ci loolu nekk ak sunu ulama yi ñu bëri ci borom xam-xam yi wa saaniha ñaareel ba ixtisaasul jaddi mooy jagoog maam bi irsi ci doon wa xermaanu axi ak xañ bokk ñaari wax yi ñoo am walam yaqul waxul ahadun kenn minal ummati ci xeet yi bi xirmaanil jëdd ci xañ maam kon bu attikat bi attee loolu dañ naan ko sa atte bi kenn du ko jàpp aw xiyaasun wala mu wute xiyaas ay waxum atteel bi naqari xawlil mu xaali bi ci yàq wax ak aji wute ngir butlaani ak neenam ak neenalam maanaam attikat bi rek moo xam yéen bokk ngir bokkul ngeen ngir isa xaarafa na mu wute naag al ulama borom xam-xam ya fi jëli yi xiyaasin ci xiyaas bu leer nañ تيانس نعم نيا تنجي نجس كنا ما يدغر يوتيت لأن غير يعني تقصر فيك كما لو هكذا ما نكب أتي ببين تنسيره نافية بعد ذاق دون المثبتة والثبوت سهل لأن المثبت مقدم على النافي كل سهل ممن يجي ذلك كل ذاق كينا أمنا غير أمود ممن يجيب خم خم يو يعني تيجي سان ما يجاك خم فممن أمنا كي واتنا بيرن خم خم بو بو كيو بو كويت ما تكوني جسنا يوم تكيني جسنا boo maandoo ko ne gis na nga yàdd loo xam ne gisoo ko loo ko gis naa nga ne ko gisu xam nga mooy ñeme yàlla dëgg lenn qawaayida sharia ndax qawaayida sharia yi taqdir day waral bi taqdim musbitati si jiital aji saxal ala naafee ci aji dàq ñaari seede la kii di saxal kii di dàq nga jël seede bu koy dàq nee na yow sa atte bi wérul loolu lay xiyaas mooy jiital kuy saxal ci kuy dàq ndax moom am na xam-xam bu dooleeku aw xàkk ma wala mu àttee ba bi adami la bi adami takmili xeqil amati ci ñàkk matal goreel jaam ba alaaman baa ca ka jaayee nasibu cëram mi naa ci moom mais sookaay ci yooyu bokkaal yi mu nekk muusa leen di ajow man bokk jaam moom mu goreel wàllam de wala moom mu jaay wàllam wala moom moom mu goreel wàllam rek su goreelee wàllam su boobaa dañ naan ko faw nga jënd jaam bi yëpp daal ko goreel maanaam faw nga remboursé gars yi seen wàll daal ko goreel laa na takk mbira inqil amati ndax mottali goreel jaam bi inqil baax di ci goreel lenn alal mu baax di ca ka lennal jaam mooy ca goreel lenn mu siiru bu aji omal maqiisun qiyaasukaay la ala takmili itqil abdi ci mottali góor ak jaam bi bi charte yi ci saataab koomal maanaam boo bokkee ay nit jaam nga goreel lenn la dañ naan la da koy jënd maa da ngay remboursé gars yi seen wàll ñu goreel jaam bi yëpp léegi nag su attaka bi ne déedéet lenn la mu goreel rek mooy gore su boobaa loolu du baax fenaa ko mu ne ma àttuna xaaj mi àttekat bi bi adami takmili itqi ci ñàkk a mottali góoreel jàmba wala xaalis te mbir mi xaalis yi la mooy ko ko jaay am na fenn xukk moom la ko àttam yu xodu dañ koy yàq wala kaan dina nekk ne xanafiyan di bokk ci waa Abu Hanifa li daan fi madarikim ngir lot ak seen jotuwaay fi hadi masalati ci biir masala waaw ne Abu Hanifa seen sukkandikuwaay si ne kii mën naa góoreel lenn jàmbit te bokk koog ñeneen te am xaalis te du duñ mottali maanaam te duñ ko wax ne ko da ngay rembourser gars yi góoreel jàmm bi yëpp loolu amul si sukkandiku waaye bu dëgg daal bu néew doole lañ sax moo tax même bu dee lu mel noonu la maanaam ko bokk ci Abu Hanifa jàpp ci masala moomu ne man ngaa ñàkk mottali góoreel jàmm duñ ko déglu. wala bu dul mën a ñàkk añeeku na mu nekk an naaqidu aji yàq li ko minal atte bi xeyri xanif yi bokk ci Abu Hanifa te yàq atte bi nag mu bokk ci Abu Hanifa ndax moom bu dee bokk na ci Abu ñoom ñu ngi àtte loolu da leen ci bàyyi waaw. bu dee bokk ci ngir Abu Hanifa moom loolu même buñ ko àttee ki ko àtte bokk ci Abu Hanifa dañ koy tas ki koy tas bu mu bokk ci Abu Hanifa wala yàq ji bayaanu sababi naqdil hukmi hukmil xayri leeral sababu sabab bi keneen ki. bu attikat attee nga naan atti bi baaxut da ngay leeral li tax nga ne baaxut la laa yum suba ngir buñ askane ilay jëm si al jawru jeng wa tibaal hawa ak topp bànneex su boobaa da ngay bañ ne da ngaa jeng topp su bànneex yàq atte buur attekat bi moo tax daal yu nit attee lu baaxut yow boo naan atte bi baaxut waxal foo ko teg waaye nag bu prondol si mazahib bi yu ko wéral rek te nekkul lu oyof bu mel ni néegu jorgan dañ koy wéyal léegi nag bu oyof la wax dëgg yàlla comme mu wax si am amata owaani waaw dañ koy dàq waalam xamal ana xukumal xaakim du taxaw ala qawle ci waxam xakamtu atte na nekkul ne foo mu ne atte naa rek pour wéyal atte ga ba léegi nag in qaala bu waxee naqaltu toxal naa haasi sénata marchandise bi an milki zeydin ci moomeel ak diw léegi diw moomatul marchandise boobu aw fasaxtu wala firi naa xaaral bayaan njaay mii aw nikaaxa wala sëy bii li fasaad yi ngir yàqoom sëy ba baaxatul aw asbattu wala saxal naa sëy ba wala saxal naa njaay ma li sixat yi ngir wéram kaara nekk na xukkuma di àtte maanaam bu jëlee décision rek ne def naa lii rek loolu àtte lañ koy tuddee waaye du force rek mu ne àtte naa pour ñu door a wéyal àtte su ko defee kon àttekat bu àttee la mu atte dëppoo wuuteeg texte yi mooy aaya wala xadis wala mu wuuteeg lu borom xam-xam yi dëppoo wala mu wuuteeg ne li nga xam ni borom xam-xam dañ koo tëral waaye teg ko ci xiyaas atte boobu moom lañ koy dàq attewaat ko in hada in uridu lislam mastatat wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh